بسم الله بسم الله إن ولي الله ما توفيق إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عندك سنتي على سنبرم لب أكتف سنتي دي دي اللي عندي بالصلاة عندك سنتي سنت سنت سنت بتلب شيخ شيخ مشايخ الناس شيخ أحمد بن محمد بن مصطفى أكسر الفات دي سنت عندك سنت سنت ببيني على الرمل مش سنت كله دي سنت سنت مش أحمد المنتقى شهوان في الإسلام مم يسمى تاريخ الإسلام للجيل تلوم دوك على كذي على كنا ما عندهم تسنت سن كل سن باي سن سن دي شيخ محمد البشير ابن شيخ الفاتح تي عندي يقول نيا هم دي يقول سن صاحب نجي سن بسيط تحوسي واخوات دبا وانت انا نايو دار مسي نبقى هم انا بعد بل الى سن بسيط ابدو خلو سن تجتن اللب نمكو ارجتن لا رجلني دقرن xam nañu yoonu murit ñun ñaar du ñett benn baat lanu Cheikh Mahmadul Muntaxa mooy suñu kilifa di suñu sëriñ te doy na sëkk lu mu wax la mu bon lan wax lu mu wax waxuñu ko te du sopp ku mukk ilaa yu wax am la ko ku fi nekk sëñ Tuubaa rek ñëpp topp ci warawe nag du bokk ci Cerno Birahim que Cheikh Daal Cheikh Fatou Bey la ma leen waxoon tey ji laa gën a naan ñaar déedéet ku ci toog ma tàllal la sax wala wax def la kilifa sukk fi sa kanam muy dellu sëñ Tuubaa ak dellu sëñ Fatou loolu yàlla képp taxoo ko te moo la fas yéene pesaare seytaane yi mu sànni woon nag ci diggante bi diggante bokk yi turu sax dootuma ci tudd bu ko kenn nga waxatul sa bokk ci ku wéy ci ndigal te bokk ci daaru xut gépp la sa yow ak koo a nekk sëñ bés doxe na ko ndigal nu dëggal baatu sëñ mu taxa ku bëgg xetul ko na àlaxal bu ko waxtaanee bu ko xool ci téléphone bu ci déglu bu ci nettali bu kenn déglu ku wax lu man ku bëgg saaga na ma saaga ku bëgg wax lu bon woon lépp at laa ko ngir yàlla ak yent bi nangu naa dimb sëñ Tuubaa te wax te lu ma tontu moo kenn waxal ken kenn tontu kenn nan la ci leen wax te bàyyi suñu bopp ak yàlla te jàpp sëñ Tuubaa mooy sëñ bi fàtte mooy moom te xam ne yoon yëpp benn la te kenn mënu ko teqale ñaar kër yëpp genn la kon loolu rek doy naa yem sëñ maam mi nga mooy sama rak di moom sëñ Ousmane Mbacké su bàyyi njëkk ci woon teg sama loxo seytaane bëgg jaar foofu bunt boobu bunt sakk na ko yàlla sakk na ko te du sekk mukk mu ngi nii toog fi sama wet nañ si sax ne kànni gàtt waaye taalibe ne si réew mi ne si bitim réew waxuñu waxtaane ko waxuñu nett bi waxuñu dégg naa waxuñu gis naa lu bu kenn xool sax lu ci bokk buñu audio bu yooyu ngeen di wax ci téléphone ñun xamuñu waaye ku ko dégg sax bu laaj ñu bul nett bul xam bul wax nañ ko ñëpp yee ci ndigal di sëñ mën taxaw joxe bisu antan joxe loolu daal na jeex tàkk loolu rek laa ci dugg bëggoon a matali asalaamaaleykum wa rahmatullah laa ngi noonu ni ko sëriñ bi waxee rek sëñ maam Thierno mi mooy suñu kilifa mooy suñu lépp léegi nag euh, li mu wax rek ci Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na sama borom yàggal ñu ko fi te mu ànd ak wér ak jàmm ak Cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Fati ndigal yi ñu joxe rek ñu tënku ci jàmm yàlla liggéey jàpp suñ jàmbur lu suñu yoon newul bu ci suñu yoon nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullah